asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu eh, yéen ñi nga xam ne yéen a ngi nekk ci xuraasul irada yëpp ñoo ngi leen di nuyu eh, ñoo ngi nuyu itam ñi nga xam ne ñoo nekk ci soppe Serigne Touba yi nga xam ne mooy daara yi yi nga xam ne ñoom la Serigne Touba loo jiite yëpp ñoo ngi nii ñu nekk ci uraasul iraada bu ñaareel bi ñoo ngi nii itam ñu nekk ci raadu tatu saalikiin ñoo ngi nii daal ñëpp ndax mbooloo yi ma bokk ñu boole ma ca bari na ah, di jéggulu ñépp itam ci ñàkk gi may ñàkk teew fépp ndax fi ne mboole mbooloo yi ma boole mbooloo mu ma ci bëgg a wax rek bis booba damay tardé li ma waroon a def ci uraasul iraada njàngale mi ma ciy def ak waxtaan yi waxtaan ci majmuatul mustamila ak yëpp bu fekkee ni bëgg naa dugg ci yeneen groupe yi ma boole di fa waxi rek léegi damay tardé fii ba ba ba muy sotti maanaam benn jàngalekat ci jenn daara la mën a nekk ndax ginnaaw waxtu wi ñuy jàngalee wenn la waaye nag xanaa nit ñi dañoo bëgg ñu doxal vingt quatre heures sur vingt yoo xam ne bis bu nekk dañuy toxu rek ñëw ci biir groupe dem ca bee ñëw ca biir groupe dem ca loolu moo tax léeg-léeg ma tardé ci uraasul iraada waxtaan wi may wax ci uraasul iraada it maa ngi ko waroon a wax ci rabitatu saalikiin bi nga xam ne moom la sëriñ Cheikh Diop jiite waaye boo gisee ma wax ko ci uraasul iraada su ma noppee dama koy jàllale mu dem ci rabitatu saalikiin su ko defee ma jël benn doj ma jam ci ñaari picc <coughs> waaye waxtu yi ma xëyoon ci liggéey bay door a wàcc waaye su ma bëggee dem waxtaanee ko waxtaan wi ci ci rabitatu saalikiin ba noppi del siwaat bëgg doxaat ci uraasul iraada ba dana waxtaan bu ma ko liggéey bi mayul damay tardewaat tey comme dama tardé woon démb loolu moo waral ma waxaat ma waxee ko fii xëy na waa uraasul iraada ñàkkul ñu xam ne ñu ngi ci rabitatu saalikiin waaye it ñàkkul ñoo xam ne nekkuñu ci rabitatu saalikiin wax ji nag ak leeral mhm. Mhm. Mhm. ak leeral goo xam ne dañ koy leeral ci laaj boo xam ne sunu sëriñ Baye Gaye moo ko laajoon démb ca rabitatu saalikiin gay nag jëmmuy gay ñoom ay ci sëriñ la ak ci sëriñ lañ leen xam ci diine lañ leen xam jamonoy njaajaan njaay ba léegi xëy na bu fekkee ni ab ngayeen mu ngi laaj lu bokk ci diine xëy na da koy laaj ngir bëgg a fàttali ñeneen ñi ci des waaye laaju ko ngir ak ñàkk a xam waaye léeg-léeg itam laaj rot rotin woo xam ne waxuma sax ku xam ci yàlla dara waaye ku ci xamul dara sax boo ko day tiit ndax ca jamonoy saaba yi ba léegi am na laaj yoo xam ne saaba yi daawuñu ko laaj ndax yonent bi dafa waxoon ne su ma leen waxatee dara lu ma su ma leen tereetee dara bàyyi leen ko su ma leen waxatee dara def leen ca la ngeen man te ngeen bàyyi laaj ndax banu Israil li leen alak mooy dañoo bari woon ab laaj ba noppi te ba leen yëlin tiye leerale laaj ñu waroog loola kasratu masaa'ilihim wa ixtilaafuhum ala anbiyaa'ihim waaw te itam laa tasalu an ashyaa in tubda lakum tasukum bu leen laaj loo xam ne bu ñu leen ko waxee man ngeen saa seen pas-pas am ay complication Mbaye Gueye démb daf ma laaj laaj yoo xam ne ñaar rek moo ma ci jaxase waaye yeneen yépp moom benn jaxase ci ñaari yi laaj te mu jaxase ma moo di arrahmanu alal arsi istawa mu wax ne al istiwa u moom maalumun wal kayfiyatu majhulun wal uh, wal kayfiyatu majhul wal imaanu bi i waajib wassualu an bidaa uh, wax na loolu ca biir wax ja ne laajuma al istiwaau aras ci boppam laay laaj mooy lan ak kursiyu mooy lan mu teg ci ne tubaab yi nag nee nañu booroon roplaan dinaaw ba dina tukkit doo dal ci dara kon asamaan si ñuy wax xanaa daa amut ndax bu amoon kon mën nañoo naaw ba dal ca asamaan sax <laughs> ba sëñ sax Jóob sax tontu na ko ne ko ah, asamaa u mooy lépp loo xam ne daf laa tiim même néeg bi nga dëkk toiture bi ci kaw sama ula ci yow ndax daf laa tiim waaye asamaan du caagee nag muy loo xam ne da nga koy egg na ca sa bopp tuy dëpp na fii la bi yem amma nag isra wal mi'raj ak ubbi asamaan yi ak tëjaat dugg foofu génn foofu yooyu xam-xam day xam-xam yoo xam ne saaba yi noonu lañ ko déggoon ci yonent bi di nga tuñ ko laajuñu ko luqatuñu mbuut dañ koo gëm ci noonu boo gisee salafiste yi ak ashari yi xaw a waroo tuuti salafiste yi ñoom dañoo wax ne am na ci yoo xam ne dañ koy gëm rek noonu ni ko saaba yi gëmee woon te bañ koo laaj ak a di nga taka dugg ko génn ndax loolu dañuy bañ a dugg ca la yonent ba di tere mooy laaj loo xam ne boo ko waxee buñ la ko waxee mu jural la loo xam ne mënoon naa ñàkk ndax amit yi yedduma ci loola ndax boo duggee ci biir ngiri aqida yi da ngay gis ne léeg-léeg nit libre laaj la loo xam ne maanaam dafa bokkut ca la tax yenent bi yàlla yónni ko bokk na ci laaj bi nga xam ne sama sëriñ bi di bàyyi gay laajoon na ma ko aras juróom-ñetti malaaka ñoo koy yenu malaaka yooyu ñooy nan nangam nangam laaj na ma loolu lépp euh, ma di ko sant nag sax di ko gërëm ndax daf ma indil euh, téere boo xam ne maa ngi ko jàngoon ci bi may am fukki at ak juróom muy ma waayibul xuddus te sëriñ bi di ci leeral umul barail bu imaam sanosi xam naa ne addi la ma ko defal yal na ko yàlla nangu yal na ko yenent bi nangu yal na nangu waaye xam naa ne li tax mu yónnee ma ko moo di juróom malaaka yi mu ma laaj ne ma malaaka yooyu ñooy te tontuwuma ko ci ah, bi ma nekkee xale di jàng na ca kër sëriñ Cheikh man ak ñoom Ibrahima Amar ñoom ak ñoom Juma Jaañ ñoom Jaañ Jibril ñoom góor gi Saar bari fàttali fàttali ko naa ci bari booba lañ mokkaloon ama alladina yaxmiluuna al arsha fa adduum aawun wuqiita albatsha ñun sax wuqiita labsa lañ jàngoon ñun jàngu ñun wuqiita albatsha waaye wuqiita labsa lañ jàngoon fadarda yaa iilu wadat fa yaa iilu wasatma yaa iilu wa atma yaa iil wa kamka yaa iilu wasan wasamka yaa iil wasasma yaa iilu wasanja yaa iil afisu a laysa yamutu abada ata yara wastal jinaani maq ada loolu jàngoon nañ ko sax te booba jàng guñu maayabul xuddus ndax dañ ko doon génne di ko bind noonu di ko jox xale yi di ko jàng di ko mokkal booba nag xaw ma luy seen ci xaw ma luy umul baraahim xaw ma loolu lépp wax dëgg yàlla ndax booba sama gëstu eggu ci waaye bi ma demee nag ba gëstu ba egg ci ay umul baraahim ak yeneen yi te fekkuma ca tur yi malaaka yi moo tax ba ma ko laajee dama ciy gàtteeñlu ndax gisuma fenn ci hadiis fu yonent bi limee tur yi malaaka yi wa yaxmilu arsha rabbika fawqa um yawma isin samaaniya nag lu ñu war a gëm la waaye ndax diw ma kan ka yaa iru ma set loolu yonent jàngaluñu ko te dafa bokk ci maandute man lii lu yonent bi jàngalewul euh, ci hadiis bu wér ma jàng ko boobu ko laajee damay noppi du ma ci wax dara noonu ni la ma yàlla bindee umul baraa in nag gëm malaaka yi wax na ko waaye li mu ci ay malaaka yu yenu aras ak diw nii la tudd diw naa la tudd ak diw topp ci tudd nii diw topp ci tudd naa ñoo yenu aras ñoo de loolu umul in indiwu ko umul baraa in jàngale naa ko te déggu leen ca ma jàngale malaaka mii diw la tudd malaaka maa diw la tudd mii diw la malaaka maa diw la tudd xëy na nag ñàkkul ne am na ay téere yu ko indi foofa ko sëriñ bi toxale ndax sëñ bi mbind moom waxu ci waxi boppam xanaa wax joo xam ne sa yir eggu ca moom la waaye nag waxu ci waxi boppam man nag bi ma xoolee umul bara in ba mu egg te gisuma ci turu malaake yi te dañ ne aqida bii mooy aqida sanusiya te moom moo dëppoo ak aqida ashariya te imam ashari tamit gisuma mu lim malaaka yooyu ne diw la tudd kii diw la tudd kii diw la tudd kii diw tudd kii diw tudd ba mu jeex moo tax man tamit ma gàtteeñ lu ci boo ma laajee daal aqidatu sanusiya mën naa la cee tontu waaye boo ma dee laaj nag malaaka yi yenu aras ñaata la ñook juróom-ñett la ñook nuñ tudd mel mi nii mel mi naa man loolu moom jàng naa ko te jàng naa ko te jàng guma mawaayibul xuddus jàng naa ko te jàng guma mawaayibul xuddus ndax booba dama bëggoon su ma dee ma gis samay ba ngi àjjana waaye nag bu ma jàngee ma ay koy xuddu xam naa ne ci la nekk waaye ku ma ci laaj ku nekkil man duma ci fatwa du ci tontu lenn lenn lenn laa ci dul tontu moo kafaaka rabbuka kam ya fii kafaaki fatan kafka ka am min kamimin kaana min malakin takril karir kakaril karifi fii kaaka musa kikatan kalak lukil kalaki am na ñu wax naa loolu waxi jinne la du dëgg loolu ay jat la yoo xam ne dañ koy jàppe jiit mën nga koo jàppe jiit te du la mat waaye loolu ci yeneen i téere la nekk waaye te nekkul ci téere lislaam te déggoon naa yi di ko wax kafa kara bu ka kamiyel fii loolu daanaa ko dégg waaye bi ma gëstoo ba gis ba mu nekkit ma xam ne lii moom ah, maanaam daal moo ci moxra xon la nge bagage yi xuccum xaaj yi nga xam ne moom xaati bu lay din la daal boori ay gittax ak ay banti si laan ak ay banti ngeer ak ay lu nekk nga ca biir ci xeeti xam-xam yooyu la bokk moo tax duma ci xuus noonu nag laay def nag ci fadat wayaa ilu ñoom ñii noonu laa ciy def moo tax kenn mësuma koo laaj ma taxaw ne la mooy diw ak diw ak diw ak diw ak diw déedéet loolu loolu mësuma ko def aqida daal soo ma ci laajee dinaa la tontu ci aqidatu sanusiya bo welsee ci malaaka yi tamit amal malaikatu fal imaanu bi im wa tasdiqu wal iqaanu bi anna um la sakka mawjuduna suma mina sunu bi maasum maanaam maam suñ tubaab li mu mujj bind bàyyil ñu ko fi man ci loolu rek tontu li mu mujj bind nga xam ne xulaasatu tadris bi li mu mujj bind bàyyi ko fi man suma laa lay jeex loolu rek tontu la mu njëkk a bind am na lu mu ca bind foofa te bind ko fii xam nga bind na al iman bi malaayika ci tasawuf di sixaar mais waxu ca ay fadal fa yaa iloog wadal fa sam ko yaa il waxu ko foofu noonu euh, li tax mu bàyyi ko foofu moo tax soo ma laajee du ma la ci tontu man lépp loo ma laaj ci iman ci aqida maa ngi lay laaj maa ngi lay tontu ci tasawuf di sixaar te ci laa yem mhm. moo tax ba ma ba ma sama sëriñ boobu di bàyyi ngay laajee ne ma aras mooy lan kursiyu mooy lan juróom-ñetti malaaka yi ko yenu ñooy ñan loola moom dama daw laaj na ma ci maa ul xëy bi ma daw rees ko loolu tamit du ma ci wax ah, waaye bi ma yónnee nag mu waay bul xudduus ma daal di xam ne kii kon daf may wax ne li ma la laaj ca tontu woo ma ci ma nga ca béréb mi ngi fii la nekk xam naa ne foofu la nekk waaye fa eh, waaye nag eh, maanaam li nga xam ne mooy umul barain te sëriñ bi di ko firi ci mawaayibul xuddus muy téereb imam sanusi fadat wayaa i loogu wooyu dafa nekkul ñàkk gam fa ñàkk a nekk nag te sëriñ bi bindaat te sa wëddi si xaar te indiwaatu ci gaa yooyu moo tax soo ma laajee ci gaa eh, jëm ci loolu diw mu tudd ak diw tudd du ma ko wax su fekkee nag am na kenn ku am addis bu wér bu jóge ci yonent bi bu buñ wax ne wa yaxmilu arsa rabbika fawqahum yawma isin samaniya samaniya yooyu yonent bi tudd na leen fenn ne mooy diw ak diw ak diw ak diw ak diw ak diw ku ko xam fenn fu addis waxee loolu man nag ma ci dimbale bu ko kenn xamut fenn nag man duma ma fatwaa ci lu ma sukkandikuwul ci yonent bi sallallahu alayhi wa loolu daal <clears throat> mooy li nga xam ne moom laa eh, doon bëgg a leeral eh, wax ci jeexagul waaye dama dafa am lu ma dogoon xam nga idéologiyaat yi dañoo bari yaa ngi dégg ruyatul kawniya dafa am ñaari façon ruyatul kawniya moo ruyatul kawniya al ilahiya ak ruyatul kawniya al maddiya te ruyatul kawnu al maddiya boobu dafay suppaxndiku di sol ay mbubb di sol ay mbubb di sol ay mbubb di sol ay mbubb yoo xam ne du jeex du xaaj ñoom euh, bokk boolu boolewuñ ci seen mbir al imaanu bi ma wara a tabia ñoom métaphysique la ginnaaw tabia gëmuñu ko maanaam bi ma wara al arsh <laughs> pour mu leer gëmuñu ko waaw euh, ginnaaw nag ñoom maa wara a tabia ñoom gëmuñu ko te ñooñu dañoo nekk ci àddina tey sol ay mbubb yu dul jeex du xaaj yii saa ñu dikk tudd nii yii saa ñu ñëw tudd nii yii saa ñu ñëw tudd nii tuddoon nañ fi attabiiyuuna moo yetul ma moo mooy mooy moo te ci yetul ma di yàlla bokk tuddoon nañ fi addahriyuuna namuutu wa nahyaa wa maa yahlikuna illa ad-dahr muy dahriyuuna tuddoon nañu noonu tudd nañu sanda sanaadixa muy sindiix ci biir islam tudd nañ ay malaaxida tudd nañ ay maadiyuna façon bu nekk tudd nañ ko te mbubb mu nekk dañ koy solte seen wax yin comme wax yin woowu ma bàyyi doon laaj moom la ndax li tax moom la mooy daf ma ne lan mooy alxuraan ndax lii ngeen di jàng mooy alxuraan maanaam mel ni philosophe boo xam ne dafa agressé ci falsafa <laughs> yaa ngi dégg ndax lan mooy alxuraan ndax lii ngeen di jàng mooy alxuraan laaj na ma loolu mu ne ma ndax alxuraan da yàlla wàcce woon ci jibril mu jële ko lawul mahfuz indil ko yonent bi bu tëddaan ci boppam euh, bu bu geganoo waa euh, poojam nit euh, alxuraan di wàcc du ko attan pooj ba day bëgg a dem su toogee ci ab lal du ko attan lal ba day dem su waree gileem gileem nga day kon nag lii ngeen di layti laytee alxuraan la lii bu doon alxuraan kon boo ko jàngee nanga noonu ma ma am dal mu di wax waxi koo xam ne ab ab mulahid yi la maanaam wax yi nu kuy weddi moom la ma noonu la ma woon moo tax ma mer ba ba mënatuma kaa tontu tontu naa ko nag ginnaaw gi ne ko alquran ba ko yàlla wàccee ci lawul mahfuz indi ko ci sama u saabia mu tollo ak guddi laylatul qadri jibril di ko fa jëlee mu najjaman loo xew mu indi lu xew mu indi lu xew mu indi lu xew mu indi lu xew mu indi bali mujj indi alquran yam yonent bi jóge fi génn àddina léegi weñ gu ñu tàngal ba mu tàng ba ba ba xonq cur nga jaare la ko ci juróom-ñaari géej ca mbax ko ca soo ko indee ndax dina yem ak weñ gu ñu tàngal mu xonq ci jox la ko nga jàpp ci xam nga du yem waaw bu fekkee weñ gi nag dañ ko jaarale ci juróom-ñaareel bi ko ci juróom-ñaari géej dool ko indil yeneen bi yeneen bi jóge ba mu def ba ba noppi kay te bis bu ne day gën a sedd mburu mu ñu lakkoon daaw bu wowut ren nappaajoo mais du <laughs> mais Euh, te ñaareel ba itam ma ne ko jibril mu yor alquran di ko jox yonent bi niroo wut ak bàyyi gay di ko jàngal seex bi mu tëliyoo jibril mu yor alxuraan di koy ndir yonent bi ci bi mu wàccee mënta niroo ak bàyyi gay mu yor alxuraan di ko jàngal sax gi ma ne ko yow sa sëriñ bi nga dee aslamtu nafsi bu doon jàng alxuraan ci sa kanam doo daanuy gàngri lu diis ci yow boo waree ci gileem gileem gëdu yes ma ko ndax lan ndax yow doo yonent bi te sa sëriñ bi jibril danaa ko tontoon ne ko yow doo yonent bi te sa sëriñ bi jibril ginnaaw doo yonent bi nag te sa sëriñ jibril kon bu jibril dee wàcc alxuraan ci yonent bi mu war gileem mu diis ba muy ba mu yës ci suuf war ngaa xam ne ndegam du jibril moo lay jox alquran te yow doo yonent bi kon bu la sa doon ja sax alquran eh, nga toog cib lal ba du damm boo waree ci gileem gileem nga doo gis ci suuf ndax idéologie yooyu nga xam ne nag mulaxi diine yi dañ koo am tuddoon lañu ay tabiayuuna tuddoon lañu ay dahriyuuna tuddoon nañu ci biir islaam ay sanadixa tudd nañ ay malaaxida tudd nañ ay na laaj yooyu nga xam ne moom lañ doon laaj bëgg a gëmloo nit ñi ne lii daal ay mboxos la waaye original ba nekkatu fi laaj yooyu man dama koy daw léegi nag boo boo bëggee boo waxee nit ki ne ko alxuraan jooje doon wàcc ci Muhammad sallallahu alayhi ndax arab la ndax arab la yàlla ci arab la ko wax alxuraan jooja bu ñent bi waroon gilim buy wàcc ci moom lañ des ci suuf alxuraan ji yéen ngi koy jàng defu dara comme déedéet maanaam loolu mooy kon ñun ñun amat yoratuñu alxuraan maa man loolu loolu laay gis ci laaj bi loolu lay gis ci laaj bi te moom lay dégg loolu laay gis ci laaj bi moom lay dégg léegi nag euh, mu teg see nag ne maa ul bi ah, xanaa kon maa ul bi jooju nga xam ne moom la Sëñ Tuubaa di tudd ci téeréem yu bari yi muy bind kon kon maa ul bi jooju mooy mooy secret bi alxuraan mooy alxuraan kon kon li ñuy jàng moom jëretul sax ñu di ko jullee <laughs> ndax a moo ko ci waxin bi ma koy déggee man ji nga xam ne moom la jàng di ko jullee day sa gëm ko ak sa ñàkk goo gëm moo fi ne waaye loo gis Sëñ Tuubaa def ko ci jaloore ci lislaam gëm gu gëm alxuraan rek moo ko ko may atlul kitaaba bi tafsirin waabuduhu bi i dawaman bila shakkin wala dajari atlul kitaaba bi tafsirin waabuduhu bi i man bila shakkin wala maanaam xol Sëriñ Tuubaa gëm gëmu gëm alxuraan bàyyi gay xol ba daa gëmewu noonu alxuraan moo tax mu jàpp ne lii daal du daane gilim du damm ab lal du sonal kenn kon daal lii du alxuraan alxuraan mooy la ko doon def ci jamono yeneen bi Euh, ci lim ma ko laajee waaye nañ leen jàpp ci alxuraan ji te bañ koo sàggane te xam ne lépp lu manqué ci ci ci nun la nekk waaye lépp ci alxuraan ji alxuraan ab centrale électrique la boo xam ne ab courant moo ca ne électricien bi koy réglé moo dàq réglé ci àddina pile bu nekk ak la koy taal waaw boo ci roofee pile bu lakk luy indi courant day tànk boo ci indee un volt mu nit ko un volt doo <laughs> indee douze volt nga douze volt trois cent quatre-vingt mu génne trois cent quatre waaye boo indee pile bu bon yooyu ku fekk ko ci day téye courant du ko joxe électricien boobu mooy suñu borom subhanahu wa taala fu la alxuraan egg ci gëm ko rek fa fala sa fala sa man-man di egg boo gëmee maraaxib nag maa nga gëm leneen te gëmoo alxuraan ah, yàlla moom ana inda zanni abdi bi waaw ndax ma ne kii ndox ak soow di ko tuur ci taatu guy te gëm ko sax ana inda sànni ab bi bi buy di dogal du dindi mais yàlla ko ci fekk ca loolu bu bu dikkee mu lakk ko fa nga fa nga toll yàlla di ko fa seet foofa la la yàlla di feeñu yow mi gëm maraaxib da seetil yàlla ci maraaxib ñi gëm alxuraan mi jóge ci yàlla suñ boroom nga bàyyi leen ak alxuraan li ñuy yëg ci biir alxuraan loolu moo yëg moom nga yëg ci maraaxib fi la maraaxib egg bu la fa alxuraan eggee nga gétti yépp ku dul ab yonent loolu moom euh, lu jar xam la loolu laa waxoon ne euh, euh, dinaa ko leeral sama sëriñ Baye Gueye di ko xamal ne moom man ña yenu aras xawma leen seeni tur ndax yeneen tibee may jàngal te jàngalaguma ñi yenu aras ne ma diw la ak diw ak diw ak diw yeneen tibi moo may jàngal te maa ngi topp leçon yi di ko rëbb par benn par benn te gisaguma ci leçon yi ma yeneen tibi di jox ne ma malaaka yi di yenu aras diw la ak diw la ak diw ak diw gisaguma ko fekk indi liñ ma hadis boo xam ne dafa wone ne malaaka yooyu diw la ak diw ak diw ak diw su ma ko fekkee ci maybul xuddus it ma xam ne xam ak ki bind téere bi moo fa egg waaye man sama xam eggu fa ku bëgg laaj malaaka yooyu niñ tudd na ko laaj yi ki bind mawaybul xuddus waaye cheikh moom du fat waa mukk ci àddina lu mu lu mu sukkandikoo ci alxuraan ak addis kooku moom doonu suuf yanke nag lu tee foofu lay em ndax ku xam sa wàll ci nag bi boo ko jëlee wàcc waaye ku bëgg a jël bopp ba ca tànkeete moom moo nag wa dañ la boo moytulee aw suux doo ko ci am li xam naa fi sama maqaama yem man sama maqaamaa ngi yem ci yàlla nee na ma nettali yonent bi nee na ma nettali ah bu loolu jeexee nag ñii dem ba aras aka dem kursi yoo ko jël ay jële ci ci yàlla suñu borom ba nañ ko nettali seen bopp man demul aras demul aras demul kursi yu man aw ma ilmu ilmu la dunia aw ma correspondance sama digg ak saa borom mu di ma sax ay saar xam naa ne borom bi dajeeg moom dinaa ko ne waaw yow lu tax nga doon jàngal gaa yi loo xam ne waxoo ko mu amal mu wax ñi ko te da nga ne waa maa farat naa fil kitaabi min shay'in te ñoom waddat gis nga ko ci alxuraan ah gisaguma addis xëy na nag mi ngi ci danaa laaj ko mel ni Oustaz Mouhamadou Lamine Sall moom mu addis bu mag la mbaa ma dem ci Mouhamadou Lo Ahmad mi nga xam ne moom it dajal na addis yëpp xam naa Ahmad moom buy laaj moo gën a xam sax xasida moom moo ko gën a xam foofu daal ci biir la nga wax waaye moom moo ko gën a xam waaye xam naa ne daal dinaa laaj daal boroom xam-xam yi ba xam ndax am na fenn fu yonent bi waxee ne eh, addis addis wax fa ne ah, yooyu yooyu ñu nga fa sarul Buxaari yi mi ngi man Ibnu Maaja mi ngi ak man Nisaa'i mi ngi man Muslim mi ngi ak man Tarmasi mi ngi ak man bare daal seen addis yi ma am maa ngi ci nag àpp ko déwén seet yi fa dara ba yaa ilu ndax dinaa ko fa fekkam déet ma ko gisee ci addis rek ma def ci fatwa waaye lu ma gisul ci addis moom gisuma ko ci alquran dama ci maandu duma ci fatwa kenn aw ma ci lu ma leer ki ko bind ci téere bi nag xam naa ne am na ci lu ko te ku jàkkaarloog mu wax la ci lu ko leer waaye man du ma jël benn responsabilité ci ne malaaka ma yenoo aras nii la kii tudd nee la koy tudd naa la kaa tudd ne la koy tudd loolu moom Cheikh du ko wax mukk boo ma laajee ci Bamba nag man naa wax ci bàmba te loolu ci bokk ndax Bamba wax na feneen leneen lu bokkut ak loolu bu dee taw it rek masaalikul naan li muy jàngale ci tasawuf loolu tasawuf di saxaar jàngale ci tawhid day gàtt na leer na lam ci wax lépp daal dëppoo ak alxuraan ak addis lenn lu war alxuraan nekku ca te man nag ci alxuraan ak addis laay dox ginnaaw ci alxuraan ak addis laay dox nag eh, fatwa gi daal maa ngi ko yemale ci alxuraan ak addis ak lu dëppook ñoom ñaar te mu leer ma lu mën naa am na sax mu am lu dëppoo ñoom ñaar sama xam-xam eggagu ca nit ki nag la mu xamut xaw ma rek la ca sañ a wax maanaam buñ la laajee ne la malaaka yéenu aras ñaata la te xamu ci lu la leer bu ci def fatwa moo tax malaaka yeenu aras daal juróom-ñett lañu xaw luñ tudd man ndax yonent bi jàngalaguma ko alquran jàngalaguma ko amaa nag aqida al ashariya mooy aqidatu sanusiya rek benn lañu maturidiya mooy taalibaane yi ci lañ nekk taalibaan yi ñoom ay maturidiya lañ waaye ñun ay ashariya lañ sanusiya lañ yàlla daal ñun niñ ko xamee moo di mubdi u mooy muidu mooy alfaalu li ma yuridu mooy sur arsil majidu wal basu shadidu mooy haadi safatal abid ila man aji rashid kooku mooy yàlla mooy ki tàmbali lépp te lépp dale ci moom te ab tàmbalikaay amu ko yaa ngi dégg mooy delloo si lépp ginnaaw ba mu ko fi jógee mooy def lu ko soob mooy boroom aras ju màgg ja mooy boroom kàttan ku tar ga mooy tànn ay jaamam teg leen ci yoonu jub yàlla mooy maliku sadid mooy almun'imu alayhi ba'da shahadati tawhid bi irasati aqaidihim min zulumati tashkiki wa tardid yàlla mooy buur bi nga xam ne mooy aji jubal képp ku jub yàlla mooy buur bi nga xam ne moo ni xéwale nun jaam ñi ba indil nu saadatu tawhid yàlla mooy ki nga xam ne moo ñu defal saadatu tawhid mu dinu wattu di wattu suñuy pas-pas ci lépp lu bokk ci euh, déng-déng yi ak dem dellu waaw comme alxuraan mu doon alxuraan alxuraan jooju danaan wàcc danaan daane ay gëléem alxuraan jii nag daane wut ay gëléem xam nga loolu yaa ngi may def loolu tashkik maanaam yaa ngi may indil si ki sàkka ci ngëm gi ma gëm yàlla mooy asaiqu lil abidi ila tibai rasuli il mustafa waxtifaayi sabiil akramin bi tayidi wa tasdiq yàlla li mu ñu wommat mooy ñu dem topp yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla li mu ñu wommat mooy ñu toppi saabatul akramin ci sukkandiku ak jubbantiku yàlla mooy almutajalla la um fi saati i waaf alihi bi ma asini aw saafi i allati laa yudriku a illa man alqasam aw wa shahid dégg nga yàlla mooy almuarrifu iyahum fi saati yi anna o waidun la sharika la fardun la misla la samadun la didda la mufradun la nidda la wa anna o qadimun la awala la azaliyun la bidayata la mustamirul wujudi la axira la abadiyun la niaya la la o qayumul la o la la niaya la qayumu lan xitaa la daimu lan sirama la lam yasal wala yasalu mawsufan bi nuutil jalali wala yaqdi alayhi bil wa tasarrumi l ama wa tasarrumi l amadi wa inqiradi wal awalu wal axiru wa zailu wal batinu wa bi kulli shay'in kooku mooy yàlla suñ borom yàlla moom dañoo jàngal jëmmam ak meloom ci lu leer naññ ci biir alxuraan waaye nag lan mooy aras yàlla jàngaluñu ko dañ ko tabax ci ay béjot ko tabax ci ay ay moom xamal nañu boppam te yàlla ci boppam laysa bi jismin musawwar wala jawhurun mahdudun muqaddar yàlla du jëmm joo xam ne dañ koy dessiné yaa ngi dégg laa yumasalul ajsaam laa fi taqdir wala fi qubulil inxi wala fi qubulil inxisaam jë jëmmam jë niroowut doomu adama yi du ci nuñ koy tollale du ci mu nangoo séddalikoo mel ni bopp nekk fii tànk nekk fii baaram nekk fii nopp nekk fii inxisaam du ko de wa annahu laysa bi jawharin wala ta'ulluhu aljawairu wala bi aradin wala tahulluhu alarad bal la yumasalu mawjudun wala yumasilu mawjudun wa laysa kamislihi shay'un wala huwa mislu shay'in wa annahu la ya'udu almiqdar wala ta'wi alaqtar wala tu'itu bi aljiat wala wala taklifu samawat yàlla min ci dégg nga min fii ila ala taata fooqa yooyu kenn du ko wax yàlla moo tax bu bu boo ne yàlla ma ngi ca yu kursi yi ma ngi ca kaw ma biir aras aras malaaka yaa ngi ko yenu kon yàlla daf ko yenu moo tax bi ma bi ma waxee laaj boobu rek damaa daal di énervé ci sensé daal di gis ne ku tudd aras tudd kursi yu xam na ne kursi yu mi ci biir aras ba noppi ne al istiwa maalum wal kayfiyatu majula wa wal imaanu bi waajib wa saalu bi bid'a nga teg ci nag am na juróom ñetti malaaka yenu aras kon léegi nga ne yàlla dañ ko yenu yàlla ji ñu yenu nag man seex <laughs> gëmuma ko yàlla yenu lépp boo balaa nga xam yàlla yenu lépp mooy mu kawinul makaan walaysa lahu makaan mooy al alimi bi ma kaana kayfa kaana wa ma lam yakun law kaana kayfa yakun yàlla noonu lañ koy xamee waaye min fii ila ala taata fawqa janba waraa amaama taxta yàlla duñ ko wax ci loolu dara yàlla duñ ko wax ci loolu dara loolu moom bu ko nit ku ko gëm rek yaa ngi jëmmal suñ borom yéen yàlla teg na ci jub yéen yàlla teg na ci sellal